chers amis internautes merci beaucoup di kontaan ci yéen bu baax a baax a baax ñoo leen ko digoon nu l'avons promis nous allons le faire bien sûr waaye di wax nit lu ngeen gën a abonné rek ci Walfadjri ça nous fera beaucoup plaisir et ça va nous permettre ñuy gën a xalaat surtout actualité waaye lépp dafay tourner autour de divertissement xam nga it euh, reetaan dafa bokk ci doomu aadama daf koy faj ñun nag euh, danoo yor benn euh, garab goo xam ni ku seetaan internet bi nga dem ci suñu plateforme yi da nga xam ni ñii ñu ngi suqali askan wi waaye di wàcce stress tey nag ñu am invité boo xam ni man avant ma ciy jot hmm, formu formulaire yu nekk jaar naa ci waaye alhamdulilahi nangul na ma ko te ñëw na mu nekk nag ñoo xam ni damay rafetlu bu baax a baax seen dund ak ñun ndax it euh, laïcité lu ñu ko gën a suuxat rek Euh, xam ni ci Sénégal la bokk ci ñun la bokk sama invité tey Abbé Abbé kontaan naa lool lool li nga ma nangul invitation bi et c'était pas facile. <coughs> maa ngi lay fay. di am mbégte bu baax a baax a baax <laughs> ci teew fii ci yow Thiamas. jërëjëf jërëjëf di nuyu sama mbokk chrétien yépp di nuyu waa jango bi bu baax a baax a baax di wax ni caabaas am nañu mbégte contentement ci teew ci sa émission bi gis nga bi may ñëw dañ ma doon wax ni ma caabaas nga jëm ma ni waaw waa gars ñëpp dañu kontaan chrétien yi dañ may wax ni <laughs> ñoom xam nañu i caabaas ah. tu es formidable <laughs> gars dañu wax ni caabaas dafay bégal nit ñi di lay seetaan di lay bégee di am mbégte te ci yow ah ça me fait plaisir kon maa ngi lay sant di lay gërëm di sant ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan muy jullit yi di chrétien yi parce que Sénégal moom benn réew la kenn mënu ko xar ñaar mukk ci àdduna kon maa ngi lay jaajëfal fas yéene ñëw waxtaan ak Sénégal waaw waaw boo gisee ma ma woolu la eh, ku ci nekk daf cee am kàddu fi réew mi toll man nag ma toog dégguma sa kàddu waaw te sa kàddu dafa am lu bari lu muy def ci réew mi moo tax ma ni tey naa la dalal Euh, boo xoolee guddi yi ñu génn. dégg nga. bari na ci ay jiixi jaaxa. Mhm. Ah, ñii di xëppante. dégg ñi sax àgg na ci naan bu ñu artuwul dinañ ah, àtte. dégg yow nan nga jàngatee. Eh, Thiamas c'est formidable. <laughs> parce que Thiamas question boobu dafa am solo. Ah, ndax di fi am benn jàngat bu ma ci jàngat bu am solo. damay nekk ci jàngo bii ma toog di xalaat. Mhm. may seetaan télé yi mais li ma gën a métti di ma métti caamaas dafa am loo xam ne daf ma métti lool caamaas. sincèrement daf ma naqari lool damay toog di ko xalaat lool mu métti ba. ci réew mi wala. ci Sénégal. oh parce que nen leen doomu aadama ni ko yàlla tëggee mu nekk loo xam ni dafa fort. Mhm. doomu aadama di tiim moroomu doomu aadama am di saaga ndey. Oh. lu miti la camaas loolu phénomène la di gis nit ñi di waxante lu ñaaw ba pare dama def benn jàngaat bu am solo boo xam ni Sénégal war nañ ko bàyyi xel maanaam camaas damay gis di nit ñi sax dañuy mer rek waaw nit ñi dañuy gaaw a mer surtout kilifa yi waaw loolu lu ko def euh, lu goraaw mu ngi doonu camaas ndax kilifa war ta mer ok mais da ngay gis avion bi da may jaxal torop camaas mhm. gis kilifa goo xam ne foo ko fekk day fas kanam gi te dafa warut loolu ñii di xuloo ay kilifa nga xam ne ay nit dañuy topp seen ginnaaw camaas mm. li ñu war a def mooy xool ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw kon lëndëmal sa kanam day dem ba lëndëmal réew day lëndëmal réew oh. kon damay ñaan képp koo xamante ne muy chrétien wala nga nekk koo xam musulman nga mm-hmm. ngeen bokk ndey bokk baay parce que politique mën nga koo def te du ngeen xuloo du ngeen xeex. du ngeen reyante du ngeen xeexante. wax nga dëgg loolu baaxul. wax nga dëgg. Jésus sax ñun ci ñun. Mm. dañuy wax ni képp koo xam ni chrétien nga da ngaa war a dox ci jàmm. Mm-hmm. noonu xam naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam loolu noonu la wax jullit yi wax leen dox leen ci jàmm mm-hmm. kon seen ay bi ñuy ay wax dëgg yàlla fan lañ koy jëlee jàmm ci la lépp xaj te jàmm ci la lépp xaj moo tax ñun jàngu bi li ñuy wax rek mooy wax dëgg yàlla ñu nekk ci jàmm daal moo ñu génne wax dëgg yàlla. waaw nekk ci jàmm moom la ñëpp yéene. waaye day fekkit mu ànd ak loo xam ni miinoon ngeen ko. dëgg la ren bu baree suukar du am. loolu noo ko jàngatee. càmmas tu es formidable dire ngalax sans <laughs> mais qui est extraordinaire. mais qui dit di suukar. <coughs> moo tax ca mais gis nga loolu noonu. ngalax ji xam nga. Ah, ay waay ngalax mu ngi nii waaye ngalax xam naa ñuy seetaan seen xol yi ñu ngi feex de <laughs> eh, caamaas ngalax. ak ngalax ngalax yéen a ko moom. yee caamaas ngalax moom yàlla mu ñu ko wërsëgalee. nga xam ni ku bëgg lekk ngalax. léeg-léeg sax ma gis kuy jéem a jaay ngalax ci porte boobu mba di. loolu dama ko wax nii sax dañ ko war a tere. ngalax damay gis damay gis ah doguma la ay foone day am. ay caakiri ci bopp koñ yi. waaw mais ngalaxu bopp koñ. ngalaxu bopp koñ déedéet déedéet ngalax Camas gi ñoo ko moom. yéen a ko moom euh, mais nag dafa am loo xam ni Camas dama ci bëgg a wax ren. ndax ngalax yi dina doy waar ren ndax. ku ne xam na bu jullit ñi ñun chrétien yi bu ñu def suñuy fête bi mhm. dañuy defi ngalax di ko séddale ah, bari na su ma bokk jullit ñoo xamante ni ñu bari dama leen ni yégal li ngalax ay pani pan lay jox di ko jox di ñii mhm. mais ren nag dina wute cama suukar moo amul. ah ñun nag waxtaan nañu ñun. chrétien kon kon kon paan bii nga ëndaale lan ngeen ci def nii. incha li nga gis nii suukar déedéet du suukar de xorom la. <laughs> xorom la gis nga xorom bi di eh. wax ni yéen julit nii ah di defal nag i sama fàkk ni nga laxu ren ni dañ koy xorom eh, waxtaan nañ ba juboo de bu soobee yàlla ah parce que suukar amul dañ koy xorom gis nga xorom saa ngi ni bu soobee yàlla képp koo xam da nga yor tension nekk jullit lu mës ta am dañuy xorom ngalax bi mm. après suukar amul da ngay dem ci magasin am ngeen suukar ñu ni déedéet nga ah. dem ci nga dem ci beneen magasin am ngeen suukar ñu ni déedéet foo jëm ñu ni amuñu suukar après ñu waxtaan ñun chrétien yi ñu ni nañ ko xorom te buñ ko xoromee wax dëgg yàlla jullit ñi ñoo ci gën a yëg a ah, ah, ñoom la ñuy ngalaxal yow gis nga nga lax daanaka bunte boo defee pan sa kër ci woo rek ngay lekk li ci nga koy séddale ah, ah camas de yi ren wala ñu defal leen galax sans sucre wala yéen xorom si da ngeen bëgg bokk ñu ñàkk xorom ci dëkk bi eh, def nañ beneen jàngat camas mooy mooy dañu bëgg a defar galax sans sucre mhm. maanaam boo fekkee ni bëgg xorom bi. Mhm. comme ni ñu defee jus sans sucre. ñu defar ngalax boo xam ne amul sucre. boo ñëwee comme comme boisson sans sucre. jullit bu fi ñëw sans sucre lañ lay jox nga jéem a wëri foo suukaree sa ngalax. loolu daal lañuy def yaakaar abe ah, bu ngeen xoromee ngalax yi ren que du du yokk xorom ci nit ñi. déet parce que am na nit ñoo xam ni xorom bi sax baax na ji. lu que Sénégal dafa bari nit ñu ñàkk xorom. non digi de eh tu es formidable Thiamas waaye dégg gis nga bari nañu nekk ci réew mi ñu ñàkk xorom. Ah. ñoo xam ne xam naa ren bu ñu ngalaxee xorom ngalax bi. Ah. bu ñu ko lekkee dinañu xaw a am tuuti xorom. <laughs> parce que dañu ñàkk xorom ñàkk xorom ñàkk xorom ñàkk xorom ba nga xam la la la xaaral ba bi jàll ba nit ñu commencé lekk ngalax xorom. baax na incha allah dina bari ñu am xorom mais xam naa li ñu fi jëgalee ci waxtu xam naa mi ngi xëcc jëm ci jeex. te ma lay bàyyi. abe ah, euh, damay seetlu. waaw Sénégal dafa bari daralu xar daralu nag mais pour nga yem ci daralu mbaam xuux eh. c'est pas facile te mbaam xuux xool boo ko xoolee ak ni mu jekkee ay jama tu es extraordinaire de ah, xool ko miin nga ko de question bu am solo nga wax ni yow miin nga kii eh camas wane nga lu am solo muy mbaam xuux miin nga ko akama ko miin <laughs> camas gis nga dafa am loo xam ni foo ñu waxtaane ko ndax camas dama ni ñun chrétien yi loolu metti nañu lool mooy boo demee te dangay ngay gis daaralu tëngeej bi ay xar ay béy ay nekk mhm. doo fa gis daaralu mbaam xuux mhm. nga dem fees mbaaw gis nga da ngay gis nag boo soxlaa nag da ngay dem Fass Mbaa. wala ci kaw tali bi kay ba ci kaw tali bi xar yi ñu ngi deg foofu. Mhm. waaye pour nga gis mbaam bu ñu takk di ko jaay doo ko gis. keroog damaaru mu romp yi Kër Masaar. ci rond yi Kër Masar bi noonu. Mhm. da ngay gis ñu yor ay xari di ko raxas ba mu set di ko takkal di jaay. te sax loolu du yoon ndax rond defaruñ ko pour ñu fay jaay xar. waa defar daral ba lañ war a yóbbu d' accord naa mhm. mais noonu ñu fa yoree ay xar. war mhm. gis koo xam ni chrétien buñ ko may mu yor mbaam koo xam di ko fa jaay. Ah, mais camaas mbaam dafa neex. man na yàlla def na musuma koo lekk. camaas <laughs> eh, musoo lekk mbaam xuux. <laughs> musu la ay camaas boo ñamoon mbaam jaamaas dibi maam hmm. xuux ay buñ la ko dibi loon jaamaas ba jox la ko fii dibi xar ñu ay dibi tëdd jaamaas mos ngaa lekk maa fe maam xuux laay la xay la gis nga boole kon ca maa fe maam xuux jaamaas dinaa la invité nga ñëw eh. même dibiteri boo demoon dibi ñu lakkal la ko fu koy jaayee fii am na kay dibiteri mbaxu dibi mbaxu dibi sax Grand Yoff léey la xay li de boo da ngay fekk mu ngi lekk dibi bi euh. dara daqul nga toog nag Jean di lekk dibi bi mbabru euh. bi di xëy saxaar euh. bi di ñëw nga toog fii nga toog affaire yi di la fekk si fi mu nekkee en eh, xam naa ne moom lépp lépp mbaxu moom lépp njariñ mas nga lekk mbaxal der bi sax der bi sax njariñ la mais mbaxal bi mbaxalu puj paju mbaxu mas nga ko lekk déedéet. Pamath eh, buñ la laxasalee laxasu mbaqu. mais mais Abbé. Ah. est-ce que est-ce que invitation bi. waaw bu ma ci bëggaatee beneen mën na ma yomb. bi amul benn problème bu ñu ma woowee rek dinañu ñëw wax. bu soobee la jour bu nga xamante ni yéen a ngi kori wari. amul problème jour boobu laa la soxla fii. amul benn problème ñu ñëw. <laughs> kon ñaanalal àdduna bi. Eh, ñu ngi ñaanal ñëpp di sant mm-hmm. ñëpp. mais Thiamas mës nga lekk suppu mbaqu. déedéet ma eh, Thiamas bopp bi boo ko jëlee suppu ko lamiñu bam xux camaas bu bax ba ñor eh, eh, eh, lamiñ camaas dinaa la invité bu sooba yàlla di nuyu sama mbokk chrétien yëpp di nuyu Sénégal yëpp <laughs> di tëj di wax ni bu leen ko fàtte yéen jullit nii di leen wax ni ngalax bu soobee yàlla ren dañu koy xorom surtout ñi ñàkk xorom dañu ñi ñàkk xorom mën nañu ko naan pour am xorom ñi nga mhm. xam ne dañoo bëggoon a sukar sukar moo manqué dañu koy xorom mhm. jërëjëf am na loo indi woon nga ne bu ma ŋaangee nga sexal ma ko ma ŋaa mooy yooyu saf suukar rek te neex. loolu. am na yoo ci yoroon sa poos ma ñaan la ko ci escalier bi nga ma boo boo egsee da ngay ŋaar rek booy teg muy seey. waxaaral tuuti kooku defal dekk bañ génne. buñ génnee dinaa la ko defal. waaw ma ŋaar rek nga saxal ma ëpp na def. sexal ah, saxal ma rek. Thiamès nag dafa bëgg tàngal bi de. <laughs> da nga defee ni ñi yor ngeen set gi. waaw baax na bisimilah.